onze euh, billahi mina seytaane rajim asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, sant yàlla nag julli ci yonent bi ndax euh, yaakaar naa ni lii yàgg nañ koo def xëy na tey nag dafa gën a yaatu ndax tànk itam buy dox day am tànki kanam moo tax tey ñu def ko mu gën a yaatu mais ñun dañu ànd ak ay handicap yoo xam ne chaque année dañuy féetoo ñoom premier mais yàgg ci lool nag ren nag yaatal bi li ko waral mooy dañu nekkaat fii ci secteur u daaru ànd ak suñuy nawle ñu fal ma fi fii ñu am suñu calebasse bu mag ànd ak ñoom moo tax ren nag mënuma dem sans ñoom ñu àndandoon nag lëkkaloo ak association coiffeuse bi ñu ànd nag def tey suñu conférence bi nga xam ni mooy première édition ci ñun waaye bu dee handicap bi yàgg nañu leen a feetal première mais mais ren nag dañ ko yaatal ndax mbooloo mooy doole loolu moo tax ñu def ko ren mooy septième édition bi kon nag dañuy sant yàlla yal nañ ko yàgg man yàgg koo fekke may gërëm nag sama association bi bu baax a baax a baax ñoom ñëpp gërëm naa leen sant naa leen may gërëm tamit jéegu daaru yi nga xam ni ñoo bokk daaru Rahman ma sëy si fekk leen fi mbaa ñu fekk ma fi ànd ak ñun nag ñu def suñu calebasse bu rëy calebasse bi man faat seen mii ak ndey xujja ñoo ko géré ñuy natt di dimbali jeeg ji ñuy dimbali seen bopp kon loolu sant yàlla la may gërëm ñépp di sant ñëpp waaw wasalaam. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant ñun waa association de coiffeurs de Grand Yoff ak mouvement daaru yi fi nekk fii si Grand Yoff ñun nag lii nag dañ ko tàmm di def ndax nit ñi dañoo jël seen journée premier mai. di ko feete ñu nag sunu premier mai bi dañ koo jëloon jagleel ko handicapé yi di leen ko feetal chaque jour dañ daan yendoog ñoom di añandoog ñoom di leen coiffé di leen defar ba mu baax bu ñu paree don yu ñu am jox leen ko suñu paree don yu ñu am jox leen ko tey nag li sunu présidente wax rek noonu la dañu léegi nañu yaatal muy Adja Ndeye mu ne nañu yaatal ba nga xamante ni boole nañ ci yeneen association mooy waa daaru yi ñu jàppalante ñu ngi sama ginnaaw sama wet nii maa ngi faat Sonko sama wet ak Sali mi ngi fii ak sanu faas seen yooyu yëpp ñu ngi fii waa béy may ak ñang di yaatal rek di yaatal rek ñun lii moo ñu tax a jóg jàppale rek loolu ñu tax a jóg jërë ngeen jëf yes seytaan rajim asalaamaaleykum yéen waa Grand Yoff maa ngi leen di nuyu ci seen tuur ak seen sant ndax kat lii moom dafa yombul woote nii doomu aadama yëpp bàyyi seen te ñëw di la wuy si loolu yombul dañ koy sant yàlla suñu borom ah di ko sant tam Ndeye Niang mi nga xam ne moom moo doon def premier mai wax dëgg yàlla ñun mosuñoo def premier mai moom moo doon def première mai mais yàlla bi nga xam ne dara too ko it ñu waxtaan ci suñu koñ xam ne fi mu ne nii ñëpp nekk benn mooy jàmmi réew mi ñun ñëpp ñu booloo nekk benn di daje si buntu këram. ay jamra lañ doon def ba mu fekk yàlla nga xam dara tëw ko léegi ñuy def xaalis chaque ajjuma ku nekk dinañ la teggil ñaar fukki junni ak juróom-ñaar ñaar ñaari ñaari nit la ñuy teggi te loolu yëpp ànd bu rafet moo ko indi ak bokk nekk euh, ñun yëpp ñun euh, ànd bokk jëmukaay lii lii na commencement la rek ñoo ngi ñaan yàlla mi nga xam ne dara tëw ko yan nañu yàlla may leneen lu dul lii si barke Mouhamed barke Serigne Touba Maya.